ab otoom la ñu sàcc fii ci gaarasu bu Thiès maanaam di gaaras de Dakar bi nga xam ne moo nekk ci diwaanub Thiès loole nekk loo xam ne lu metti la ci kii di Ousmane si démb ci guddi nag lañu ko def nan leen nan la demee ak nan la lépp lañ leen bëgg a expliquer ah, ci li nga xam ne daanaka moo nekk information bi ñu leen di jox waaye information bi tamit alerte la ah, ci képp koo xam ne tamit dégg nga seen bi ni mu demee nga mën a bàyyi xel bu baax a baax ah, ni ngay doxee ak na ngay tëjee sa oto gars yi maa ngi leen di ziar ci xibaar yi ñu leen di faral di defal ci kàddu gi seen mbokk seen xarit Aladji Malick TV mu nekk information bu wér boo xam ni kii di Ousmane Sy nag ma nga dëkk fële ca Njaxate Njaasaan dëkk bu ñu naan Mbengeen moom Njaxate benn la képp ko xam Njaxate di nga xam Mbengeen moom nag dafa war a yëpp bàyyi ab otoom fii ci garage bu Dakar nu mu ko bàyyee maanaam dafa bàyyi oto bi nag jël ay bagage am ngir dem foofee ca mbengeen fanaani fa bu ñëwee nag ci fajar gi cinq heures du matin oto yooyu ngay yàpp bu ko defee mu mën a ñëw jël ab yabi client am daal di mën a dem fa nga xam ne fa la client la jëm yóbbu leen waaye nag surprise bi mu am mooy ba mu gaaree oto bi bàyyi ko fa fanaanal ko ci garage bi ba mu dil siwaatee ci fajar gi di yàpp oto ba nag furaas daldi xaddeen téggu ko bët fekku fa oto ba fa nga xam ne foofu la ko gaare woon maanaam ñu sàcc oto ba ci nunu ko mën a waxe donte nag waxe di xaw naa doy waar waaye ngeen jéggal ma ci kàddu gi mais sàcc oto ba fekk ko fa loole tamit nekk lu métti bala ma avancé mën ngeen ko woo képp ku gis oto bi 17 maanaam 77 343 57 55 nga xam ne da nga mën a jot Ousmane Sy bu ko defee maanaam mu man la maanaam wax ba ngeen jokkoo ba fekkente ni gis nga oto bi képp koo xam ne tamit am nga ci lu ko xaw a njort ci ak leerte mën nga ko woo ci numéro boobee Ousmane moo nekk noonu nag ci uh, côté càmmoñ bi uh, ci photo bi mu nekk loo xam ne lu doy waar la kon Sénégal gi yëpp ñu leen gi bàyyiloo xel ngeen bàyyil ko xel jàppale ko képp ko gis oto bi mën nga ko woo ci numéro yi beneen bi nag mooy ngeen gën a fagaru yéen ñi bàyyi seeni oto ci garage bi comme dëkk bi léegi dafa joxasoo bu ngeen di bàyyi seeni oto ngeen bàyyi ko ci ay loxo yoo xam ni bu ngeen ñëwaatee da ngeen ko fa mën a ah, maanaam récupérer waat ah, ci li nga xam ne mooy avertissement yi ñu leen di jox ndax lii moom jëf ju ñaaw a ñaaw la ci ndaw loo xam ne nag wax dëgg yàlla dafa dajale li mu am ak li amul di góorgóorlu bëgg lu mu yóbbu këram ñu def ko nii nu ko def jëf ju ñaaw la jërë ngeen jëf